ngi nii ci sëri bi ak loxom ah sëri baa ngi ak loxom ñoom maam jaara ngoog grand am di Moustapha ngoog xool am di Moustapha waaw gis nga de mu ngi photo ak soppe yi ak Cheikh Safa Ay non sen non tafatin nga xam xam ci tafatin ngoo ci photo gaay photo ba tan bi dafa garaw ah. oh, li dafa xool kan fa ay way bay ci ngoo bay jégué ko xam mo mo bi non xool tafatin bagage sa yaani bawol sama père sosé mané cheikh mustafa amdi mustafa mu ngay dem tey daa may tout plan ndax lu dul jàmm jàmm ko Bawol baa ngi noonu xale Njanjaar baa ngi noonu xale Saamel baa ngi noonu xale bi nga xam ne moo bàyyeekoo Fudaay mais mais mais mais li ngay taggee kii mooy am di Moustapha mag la ci Njaay tin waaye mag la ci xarit tin la àndal ñu di doomu ndeyam lu yàgg dëgg la Tafa Leer ki nga xam ne mooy Cheikh waaye kenn du Socé Mané Socé Mané ngi noonu tolul ni mbër waaye lu mbër def mën na ko mooy Socé Mané tolul ni mbër yi lu mbër def mën na ko Njaay tin a noonu ki nga xam ne Gaston Xaali moo ko dugal ci benn kalaaf. ñu ñu déglu maam Jaara li muy li muy raconté. ndax ndax kalaaf bi mu ko dugal daa am solo. ndeysaan. Njaay Tine ko jox mu ne la bëgg ko. waaw ndax dóor ya. tey Gaston Xaali Mbeng makkan ñëw teew. jël ki nga xamante ne nii moo di caatu yoof ñu ne déedéet te lay yem. mu indil ñu gàmmu gay ñu ne déedéet ca lay yem mu dugal ñu yaraax indil ñu caatu yaraax muy classe bu am solo ca nag nee naa leen yokkul danga ngaa wàññi ca daa yokk ndax xam làmb kon bi mu fi bàyyee ki nga xam ne mooy makkan makkan daa sol dalu bàyyee mu jot ko sëkk kon làmb làmb leneen la mais nag dañuy ñëw le premier le premier octobre waaw Ibrahima Diop Kajoor production waaw Mama Lamine Mama Lamine Sarr Goro Sok Goro Sok mboor mboor bi nga xam ne daa ñëw arène am defet waaw Mama Lamine ba tey ñëwagul arène nationale fils de Balla ko daan Mama Lamine ba léegi ñëwagul arène nationale mosu fa bëre mosu fa bëre la amoon ma moom góor a soog la njëkk a am combat bi yàqu ñu del si jox ko double moteur combat bi yàqu ñu tëggaat ko ak góor a kon lan la ñu war a mën a xaar ci double moteur ci la ci ci gó kii Gora Sock ci làmb jooju ndax revanche lay jëliwaat daa ameel ay supporters am bor lan la war a indiwaat suur boobu noonu muy le premier octobre. buñ fa jógee. buñ fa jógee. Ah. Eh, eh. cum. fan lañ jëm. ay la xëy na laaj naa la fan lañ jëm. ma tas ko comme weccet. ma ma wàññi ma bàyyi octobre ma dugg rek novembre. ñëwal ma toj ko comme weccet ñëwal. le 5 novembre. diggante Ama Baldé. Modou Lo ak Modou Xarañ Lo. bi taxaw depuis 2019. combat bi presque 2019 la taxaw. ba léegi xam nga avance bi fii lañ ko joxee Gambie. Gambie la woon. kooku xoyantaan bàyyi ma ñoon. waaw ñu dellu si waat. Ah, ah. face ba waroon a am arène nationale xoyantaan bàyyi ma ñoon war a bëre grand combat bi. affaire bi amul ñu ñëwaat Gambie. ñu ñëwaat en ko ànd ci ak xale yi nga xam ne ba ñu juddoo la ñu màndi làmb muy Baye Ndiaye ah, ah. nga xam ne kenn dootu ko wax lii la da koo mën téye ko di doomi Aziz Aly ñaan ñu ñaanal papa booy ñaa ah, Eumeu Sène Eumeu Sène Tapha Tine combat jànq bu ñëpp doon xaar ci àddina combat booboo ñëw tey sénégalais yi loo doon waxoon ñu ne bëgguñu kenn ku dul euh, Tapha Tine Eumeu tey combat bi taxaw li bawal di xaar ci tafaatin mooy wëlbit gaan dañoo sonn ci décision arbitre dañoo sonn ci décision arbitre. mu def ko contre Elton. contre dañ cee sonn. mu def ko ñun dañoo bëgg wëlbit gaan. mu def ko bomb boo ñaar benn yoon bawal ñoo nam mu combat tafaatin di combat jànq wëlbit gaan bawal la ko nam. mais est-ce que am na seen mbër bu ñuy wëlbit gaan la. foofu laay jëm si ama sëtub Samba Xoyaan bi. muy ndaama goo xam ne bëre rek boo boo xoolee jëmmi ama seen xam ne day bëre ama day taxaw sax di ay jaaraa ngi daanu de. ama day taxaw rek di bëre waaye cay làmb ji bu tafaatin njëkkee jàpp ba kor ëma ñàkk làmb ji waaye bu ëmma njëkkee téye ba xandaalu bawol gépp jóg taxaw sol seeni dàll dem ba reefan toog ca duñu xam lu leen yóbbu bu baaxee ñu dem bu baaxee rek ñu dem tafaatin mooy xale bi nga xam ne bawol la juddoo waaw yaroo bawol waaw doonoon apprenti euh, Njaga Njaay Njaga ba tey mu yor taxi waaw ba tey mu ñëw fekk Balla Gaye 2 ñu teg télé mu ne maa koy jël ndax damaa gëm li ma doon bawol daa manqué champion maa ko fay def ñu ne ko fooy jaar mu ne ci mbapat bii nga xam ne Fall Assane Ndiaye ko tëgg Bawol production te stade bale ñu bëre Balla Gaye 2 daan ko mu ne du ma bàyyi damay ñëw ñëw jaar ci ay nawleem dugg ci kalaaf la déguère 2 rek a ko daan dëgg la en 2007 en 2007 mu ñëw ah, ah. am Elton ah, am nu mu def ak moom ñu ne fa lay yem moom Bombardier am na mu def ak moom ñu waxaat mu ñëw jëli Boy ñaa am na mu def moom ñu ne déedéet mu jëliwaat ki nga xam ne mooy Bombardier uh-huh. waa tey nag bawol bool yi ñoo nam ndamu tafaatil wëlbit gàng yóbbante buñ ma yóbbante la rek am di Moustapha bu baaxee rek ñu ne kan la Modou xereñ loo mooy xale bi nga xam ne bi muy ñëw matul mbër Modou loolu lañ ko doon wooye ñu dem bañ naa ko xereñ xereñ bi da koo dab xereñ bi da koo dab judduwaale wu man man ma yokkal ko si le robe des wuyu ma nañ ci def code ba yegg biir gaal jërëjëf maam jaara ma décoltiqué ko maam jaara ngok ak xam lamb dañuy door rek ay xale lañ ak xam lamb gaay baay leen xel sa baay doon promoteur teug lu ne ci lamb bo xamul ci lamb dara dañ la koy kan laaj sa baay wallahi ndaysan nga ma neex nak nit musul laaj lam kan moy sa baay man ibrahima diouf la sama baay tut mo teug iba marjo. ibrahima diouf mo ñëk teug lamb iba marjo. di bawal bawal bu ñëk jël xaalisam financé ko ci lamb doomu réew mi la de nawle daa foor waay bul tax ma toj sama wéccatu baay. soo yaram day daw. bàyyi Bakkan TV. suivre leen femme bi. ayca jeex na suivre leen maam Diarra. làmb ji dina ko téye ji ci loxoom. mais kontaan mais bu ñu dajee gàmme. Uh-huh. dinañ ci defaat lu gën a am solo ndax dina ñëw ci macca caatu daaw dafaal dinaa ñëw ci macca caatu daaw dafaal dinaa la ci indil tojal la booy bu xees bi bu mu la jël de man maa lay jëlal sama bopp cum dund sama xarit bi may na ma ndox yow